mënuñu nangu tey ñu ne lan moo xew ci Petrotim assemblée bi ne patt mel ni ay jàmm fa nekk. dañu bëgg a xam lu opposition bi wax am na wala amul loolu pour ñu xam ko dañuy am commission d'enquête parlementaire wante nekk ci assemblée bi nga nga foog ne ni taasu sabaru. ak tàccu moo la fa yóbbu kooku seen ça ne peut pas continuer premier ministre du Sénégal ak tout le respect que j'ai pour lui di ñëw assemblée nationale jàkkaarloo ak ñu nga xam ne nii. ñoo koy votel moom premier ministre. Mhm. ay fonds politique am. mu ne leen fonds politique amul Sénégal. Mhm. man balaa may dee su ma nijaay euh, Moustapha Niass di président assemblée national di ma ne yow noppil yow noppil wante moom mii oh, di Moustapha Niass dani la fii kenn fi cëppi cëppi maa fi ne waaw moom xam nga cëppi cëppi ku min cëppi cëppi wala cëppi cëppi mooy cëppi cëppi ah. waaw man loolu xaw ma ko wante lu ma xam ba xam mooy moom ci boppam nowul nangu kilifa bu tollu premier ministre bu mel ni premier ministre di ñëw ci assemblée nationale di jàkkaarloo avec le peuple. Mhm. di leen di wax lu dëppawul ak dëgg. nekkul fi leen mag yi jàpp baax. non mais parce que moom ci boppam Moustapha Niass mais moom ci boppam dafa am ay fonds politique te assemblée bii moo ko koy voté lu mu mën a toog moom nekk président de l' assemblée di nangu kii di premier ministre di wax lu dëppawul ak dëgg balaa may de premier ministre ne non fonds politique amul mhm. wante fonds spéciaux am assemblée nationale du académie française fonds spéciaux ak fonds politique suñu mënee wax lan mooy différence bi mu wax ñu ko wante lu am ba am mooy tous ces fonds sont soumis à des régimes dérogatoires mm-hmm. man li ma bëgg a xam mooy ñu yooyu yëpp di am te teguwul ci yoon mm-hmm. ñu koy bàyyi mu jàll lan la président Macky Sall moo jàpp chef maanaam tête yi nga xam ñoo nekk ci parti politique traditionnel yi mm-hmm. moo leen nooj ba nga xamante ni kenn mënatu cee yëngu wala lan la yéen ñi nga xam yeneen ndaw ñi lu tax bi teer bi di ñëw te d'accord leen lu tax yëngalu leen lu comme ni ngeen koy defee saa su nekk lan la. tey ci suma gis-gis bu gàtt dëkk bu am plus de cinquante ans d'indépendance ak ñaari alternance suñu génnaatee ci mbedd bi pour faire du réchauffé mooy toj taal pour laisser encore quinze vingt vies dans la rue. je pense pas que loolu mooy xel lii di xel mooy nañu jéem a dem yee askan wi yee askan wi mooy lan damay joxe exemple Macky Sall mooy président bëggul jàkkaarloo ak Khalifa Sall mu tuumaal ko sosol ko dugal ko ci kaso bi nee na sàcc la ñun ñu ne dañuy defar ay prospectus constitution article 10 moo ñu may ñu ne mën nañ communiquer par l'image hmm. par la plume ou par la parole ñun dañuy laaj rek ñun sosuluñu kenn dañu ne prospectus bi lan lay wone day wone jaar-jaaru xalifa Sall wone jaar-jaaru Macky Sall ku nga xam ne ni 1983 ba tey yaa ngi liggéeyal sa askan di liggéeyal sa réew ci député ci ministre ci maire yaa fi njëkk def déclaration de patrimoine mm-hmm. te ba tey amoo milliard 40 ans d' politique 30 ans de responsabilité administrative mm-hmm. 83 déjà ba 93 Khalifa Sall nekkoon na ci député assemblée nationale. Mhm. ñu ne waaw Macky Sall bu tuumaal Khalifa Sall 83 moom ba 93 amuloon xëy moom mi ngi commencé di liggéeyal askanu Sénégal. 2002 ba que président Ablaye Wade tabee ci gouvernement bi mu nekk ministre. ku liggéey 2002 ba 2008 te sa ay woojur bàyyi ñu ne benn ndono. Mhm. amoo registre de commerce doo amoo quitus doo commerçant waaye yow noo mënee am. juróom-ñetti milliards juróom-ñetti at. moo tax ñun ñu kenn dañu ne kayit bi lu muy laajte mooy entre Macky Sall ak xalifa Sall kan a gën a jekk ci jël alalu askan wi. man li mu bëggoon laaj moo tax lu ñu bëgg mooy askan wi. na ngeen xoolaat wax ci ku mel ni xalifa Sall waxuñu dafa jaay suuf. waxuñu rapport bu nga xam ne ni def na presque mille deux cent et quelques pages nga jël ci ñetti page ak benn genn wàll. langaamu ci lu nga xam ne ni rapport bi lan la wax rapport bi waxul na ngeen tëj xalifa dafa dëpp kees rapport bi dafa ne ñu créé woon kees bi balaa xalifa Sall di falu nekk maire de Dakar te pourtant ñu mmh. ngi fi. Mamadou mmh. Diop ngi dund ba tey te feebarul. Mmh. Pape Diop ngi dund ba tey te feebarul. kenn woowu leen sax même pour que information nga ne ku nga xam ne ni moo doon génnee xaalis doon ko jox xalifa Sall comme nu ma ko doon joxe euh, euh, Pape Diop te moo fi nekkoon jamono Pape Diop. kooku moom. da nga koy bàyyee mu ñibbi këram da nga koy teg soi-disant sous contrôle judiciaire te moom mënul indi plus de de garantie de représentativité devant la justice nga ne da ngay jël le maire de Dakar moom dañ koy tëj kaso maire de Dakar fan la mën a réer ci dëkk euh, euh, ci biir dëkk bi. mënul nekk su nekkulee règlement de compte ce n'est surtout pas une reddition des comptes.